هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يوم ترى المؤمنين والمؤمنين يسعى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 ba tey ñu ngi ci suuratul araf war a tàmbalee ci bopp aaya waktub lana fi hadihi dunya xasana baada audu billahi min alshaytan irrajim واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا alamin noo ngi bàyyi ko woon fi borom bi subhanahu wa taala di nu xabaare ba tey ci diggante yonent Muusa ak nitam xam ngeen ni Muusa bokk na ci yonent gën a daj coono moo tax ba Muusaa meree aw nitam ba mer ma dal wane na ni kat téere bii ko borom bi jox jëfee ko mooy jëriñ jaam ni ndax ndigalal yàlla moom mënta tolloog ndigalal mbindéef alquran tawraat injil zabour yooyu yëpp yàlla da leen a wàcce muy feuille de boo xam ni nit ki dafa war a appliquer la ca nekk su ko appliquer yoonu texem la léegi nag na yëg ni képp kuy bëgg jëfandikoo ndigalal yàlla soo làmbaayoowul fayda da nga ndax seytaane du la bàyyi yow yaay nekk noona seytaane ñi mu xës ba moom amatul ci ñoom soxla mi ngi mel ni rek góor góor moom jigéen jëmu xës a takk bu deful ndànk rek jàpp na ni moo ko moom léegi beneen kay lay xalaatati noonu la seytaane mel ku mu xës ba lonk rek ka ca des lay uti fu mu dugg fekk na ñooñu di góorgóorlu da leen di jaxase moo tax boo demee ci këru jaamukatu yàlla yi ñooy ëpp problème boo demee ci këru ahlu sunna yi ñuy ëpp problème du dañoo ñàkk fayda de du bëgguñu lu baax de mais noon bi ñu nekkal mu tëë bàyyi moo tax kër yi du neex sëy yi day naqari xuloo yi day bëri ibaadu yi mënuñoo yore jabar ibaadu yi mënuñoo yore sëy mënuñoo nàngam mënuñoo muñ mënuñoo nàngam mënuñoo nàngam parce que bunt boobu la am bunt boobu mu am na day jaar ci ku góor ki di yàq di jaar ci ku jigéen ci ku gën a ñàkk fayda rek ca yow lay jaar moo tax toujours nanuy bàyyi xel ni jamono bu nu buggee suñu dund neex suñu kër yi neex rek mooy nañu topp seytaane buñ ko toppee rek daanaka kër yi day neex waaye ndax mujj gi foofu la déedéet mujj gi nag moom mooy borom bi la mu bëgg subhanahu wa taala Muusa alayhi salaam tànnoon na ci ay nitam juróom-ñaar pour ñu dem dégg kàdduk yàlla loola doyut leen ñu ñàmbaas te bëgg a gis yàlla bañ ca dugalee lu ca bokkut borom bi wan leen ni nag man duma ku ñuy gis loola it nag tax na montagne ba yëngatu ñoom ñépp ñu tiit Moussa ci boppam ma ànd ak ñoom moo gën a tiit moo tax bokk na ci la mu wax ne yow yàlla lii du dara lu dul say fitna rek waaye jéggal ñu yërëm ñu ndax yow yaay jéggalaakoon yemul foofa de day continuer ñaan bi moo tax ñaan moom rek mooy dimbale jullit jamono boo nekkee ci xat-xat jamono boo nekkee ci jafe-jafe am na ku nekk sa wet ñu ngi koy tuddee ñaan sellalal sa xol rafetalal sa yéene jàkkaarlool ak sa borom ñaan ko te gëm ni dana la may tagg ko comme ni géwél di taggee sangam wan ko ak néew doole bu mat sëkk comme ni jaam di mel ci kanamu buuram su ko defee te dëggal ko borom bi nee na rus naa sama jaam tàllal loxo ma delloo ko kon jamono bu jafe-jafe amee dellul ci yàlla waaye jàngatal jafe-jafe boobu am ndax yow la la war yaa ngi koy def la war bu fenkee yaa ngate ndax yaa ngi def lépp wala am na loo te bàyyi bëri na ci ñun ku am ay jafe-jafe kenn ku nekk fa sa tolluwaay ci alal toll loolu fa sa jafe-jafe toll gis nga ki denc ay million jafe-jafe million la am ki denc dix mille jafe-jafe dix mille lay am ki dencul cinq mille jafe-jafe mille francs lay am bul xeeb soxlay mille francs ndax yow dépassé nga soxlay 1 million bu ko xeeb kenn ku nekk sa tolluwaay fa la sa fitna nekk léeg-léeg nga gis ku sonn lool fekk ndeysaan bëccëg bi yëpp benn 1000 francs lay ut mu boo ko gisee nag nga bu ko waxee nga ko ndeysaan 1000 francs rek fekk du rek de yow li nga yenu moom da koo àttanut te boo seetloo ci yéen ñaar moo la gën a noppalu moom xam nga problème 1000 francs la am. problème 1000 francs néew na ñu tëj ci nit kaso yow problème 1 million nga am buy wuute rek ñu yóbbu la dig loolu moom moo tax kenn ku ci nekk yàlla daf la tollaleel la nga tolloon dof bi nag mooy ki bàyyi siwo ba mu yenu dem di xooli paan yow xam nga ni moo siwo bi nga yenu daa am problème nga bëgg a yenu ji paan léegi nag boo ne këlëb siwo bi mu këpp nga uti paan da nga fekk paan ba fees doo ko attan sa siwo tuuru na loolu la olof bu ndox tuuroo an bàqa des am bàq ñàkk pexe la rek waaye boo amee bàq du tax nga am ndox kon lay jàmm ji moom mooy ku nekk bu xamee la mu tollool nof lay daal dinay ñëw moo tax yonent yàlla Moussa ne borom bi ñaan bi doyut de ñoo ngay ñaan ñaan na bokk na ci contrôler li nga lekk contrôler li ngay naan contrôler li ngay sol ñett yii ñoom rek ñooy charte nangu ñaan bis boo bëggee boo nee allahumma yàlla di ñëkk yàlla may la fexeel ba looy lekk na lew na nga mën a justifier li ngay lekk lu lay tekki maanaam li nga añee li nga reeree li nga ndékkee wala la nga jënd justifier li nga lekk lan la ci nan nga ko lekkee ndax ñàkk boo ñàkk mu lew la par exemple tey boo fi jël gañewul alalu péemi wala alalu carte nga lekk biir bi suur na mais danger bi mu lay indil virus yi mu def ci sa yaram fekk loolu reesul ba jeex setagoo te danger bi mooy mën naa rees mais mu def parce dafa suuxat ci sa yaram loo xam ni fekk mu ngir dund ci condition booba boo ñaaree da ngay coupé mi ngi mel ni portable bu am batterie am piis te amul réseau am amoo amatoo réseau lan moo tax amatoo réseau pourtant piis baa ngi fi portable baa ngi fi batterie baa ngi fi mais xam nga li problème bi moom mooy sa puce moo amatul doole pour mën a joti satellite moo tax munoo am réseau fu ne nga dugg nga defarlu foog ni dañ laa def dara dañ maa liggéey damaa nangam damaa nangam fekk yàlla lor sa bopp xamul da nga lor sa bopp benn fataaye vingt cinq franc bi nga lekk xeet ko te alal ba lewul moo nekk ci sa biir bi mu nekkee ci sa biir naan nga ca ndox mu yokku rees na am na lu dem ca saw ya du problème am na lu dem cabinet du problème mais li des nekk deret ak ndox di suuxati yaram bi fii poson boobu mu ngi ci setagul boo nee allahumma yëpp ay tëju dara du ndox yàlla nañ ci yàlla musal nañu yàlla musal ci portable bu amut réseau yàlla nañu yàlla musal ci nit ku amut réseau gis nga dangay wax sa borom a ngi lay dégg mais du la faale lan moo tax du la faale dangaa def benn ca yamu tere parce que dangaa lekk lu leen moo tax mbokk yi barket àdduna newul ci bërile waaye mi ngi nekk ci contrôler la ngay lekk ki la ci mën a dimbale boo amee soxna mooy sa soxna waaye soxna bi la mën dimbale mooy soxna bi xalaat suba mais soxna bi nga foog ni moom le président la jàpp kooku du la kooku danaan noo amee baax na mais soxna boo xam ne day contrôler ba contrôler li ngay liggéey kooku moom mooy jabar bu baax booba nag moo jafe ci suñu jamono bi na mu jafe it góor ñu mel ni it noonu la jafe ndax góor gi boo góorgóorloo bay uti lu leew ñii ut lu leew amuñu lu bari de boo bëggee lu leew <laughs> du bari nag ndax ndax li leew moo bareetut comme bareetut na nga bëgg lu ne gaaññi kër goo dem fekk fa écran plat nga am kër goo dem fekk courant mat gallax nga ni nga ni naa ko am ah bëgg nga ko de waaye ndax amin ba yomb na loolu mooy problème kii contrôler kooka mooy sonn mais ku contrôler wul alalu àdduna am ko yomb na ku ko bëgg a am am ko waaye nag liy problème bi mooy ngëm gi ci àdduna su ngeen seetloo àdduna bi léegi lépp dafa yàqu dafa wëlbatikuwaat delluwaat gannaaw léegi àdduna bi ñëmu joon léegi ñoo nekk ci kanam ñu njëkkoon nekkaat ci gannaaw tey xool leen àdduna bi tey jullit ñu bëri boo leen dégloo ci yenn débat yi ñu leen di invité surtout yenn ustaas yi ñuy wax ci wàllu diine da ngay yëg ni kon réew mi dafa tardé parce que comme ñoom ñiy wax ñoom ci seen bopp dañoo tardé kon da ngay xam ni réew mi tardé da ngeen di xool jàngat jamono bi ñu toll tey jàngat leen Égypte jàngat leen Syrie Yaman jàngat leen àdduna bi tey àdduna bi fan mooy tàkk mooy dëkku islaam yi dëkk yi diine amoon yaakaar mooy tàkk léegi nag bokk na ci la koy def mooy iblis parce que loolu gañam la moom jàpp na ni nay yàq fu mu toll waaye jullit ñi it dañoo yàq lan mooy dañoo yàq dañoo weddi alxuraan sànni ko ca gannaaw foog ni technologie mooy avancé àdduna foog ni xam-xamu tubaab bi mooy avancé àdduna foog ne démocratie mooy avancé àdduna bi te démocratie nekkul nañu ko waxee mais ñoom nañu ko yëgee la ñuy dundee démocratie léegi nag àdduna buy doxee noonu nga xamante ni tey boo xooloon Nations Unies xool dama toog ba ci yàgg ma ne man droit de l'homme léegi lan lay tekki kenn amatul signification lu muy tekki wa wala boog man ci sama jàngin man damaa yëg ni léegi li ñuy tuddee droit de l'homme amatul amatul lan moo tax amatul tey bu ngeen xoolee Égypte lañ fa doxal ëpp nit doole tëj ko kaso xëy foqati nguuram ne ko doo dara yemut fa ña ànd ak moom presque rey nañ ci lu ëpp vingt sept mille personne te moom ma nga xam ni mooy président ba musul rey nit manifestation bi amoon ñu jiiñ ko juróom-ñaari ñu ñu dee ñu àttee ko juróom-ñaari ñooñu mais kii rey vingt sept mille moom moom nga luñ koy àttee moom xaw ma dégg ngeen mi bi wala déet tey jii ña nga xam ne ñoo bëgg a àtte si ñoom rey nañ vingt sept mille ñu ne si rey na sept personnes waaye léegi léegi bii lii est-ce que tolloo na te pourtant boo xoolee tubaab yi ëpp làmmiñ société droit de l'homme yi ëpp coow ñépp a ngi nii xam nga léegi kan mooy lom mooy tubaab bi tubaab bi rek mooy lom bu ñu fi laaloon benn tubaab ñëpp jóg c'est pas normal nangam nangam nangam nangam coow li jóg lii tey mooy dox ci àdduna bi ñu téye ay jullit di leen rey xool leen de ndeysaan walaay bugguma tax di dugg ci ci domaine yu mel noonu ay imam ñaata imam la ñu jàpp Égypte ci àdduna ba mu daj. 55000 55000 imam yoo xam ne yëpp xafasatu Qur'an lañ. billahi alladi laa ilaha ghayru ñoom ñëpp ay xëfaas lañ tëj leen li gën a garaaw léegi dañ leen di tere julli. dañ leen di tere julli Mouhamad Rachid Amir dafay jàpp tàkkusaan gars yi ñëw yenu ko du xam nga fu ñu ko dëj kaaf waxuma kaso de kaaf du siggi du dox du noy une semaine toog na ko gisul jant xamatul ci àdduna ban la nekk doomam bokkoon ci ñi gënul dëgër ci jigéen ñi dañ koo rey ci kanamam rey ko ci kanamam ñu ne lii mën na indi jàmm ci réew bon gars yi ñëpp noppi xam nga lu tax parce que américains yi français yi xam nañ ni kii fa nekk di rayee moo leen gënal gën fa nekkoon di muus si buñ ko bàyyee islam la bëgg a doxal wala diine ak ak maamu Égypte nag yëg nañ ni ndeke dañ leen tëjoon kaso ci état mursi bii la ñu yëgee ni ndeke ñoom war nañoo am liberté xeetu liberté bi leen xeeñ nag moo indi na yu bëri yëpp parce que Égypte dañ leen a dañu leen a mës a not ba ci Husni Mubaarak seen dund yëpp dañu leen a not égyptien mësul am liberté mësoo sañ a def mësoo sañ a wax kee ñëw libéré leen bàyyi leen ci nañ ko bëggee di ko doxalee ñu ñëw ne ko nag yaa tooñ lan moo tax nga tooñ parce que yaa laal li baax tey àdduna bi loolu lay doxee loolu nag di dox dëkk bu nekk la nga ci tolloon sa wàll nga cay jëm xam nga ñun moom ñoom du ñu manifester ñun du ñu xeex du ñu dee waaye ñun suñu xol yi ñoo dee ñun feebar bi gën a bon lañu am suñu xol yi ñoo ñun amatuñu repère amatuñu ku baax kuy wax amatuñu sëriñ buy wax amatuñu ko Sénégal fi mu ne nii dafa am crise xam nga crise lañ la am crise chef religieux dañ koo am moom très sérieusement dañ ko am xam nga chef religieux mooy koo xam ne day gis ñu agressé islam mu jóg wax. mu jóg wax mais amatuñ ko léegi dañuy nelaw rek nelaw fokkat yi nag di jóg di fo di fo rek tey damay déglu waa rajo dégg ñu naan waaw ajjuma bi waruñ ci woon def làmb naan wala léegi mais noppalu leen xam nga ni ñaa seetaan jël nañ ajjuma des na tuuti heure juma danañ ci tëgg ay combat parce su Sénégal amul wax da nopp rek léegi nag ay na siyuux ay na al aïmma ay na al mursidun ñooñu sax nag ñooy dem di seetaani ñoom maa ngi dégg benn oustaz mu naa man favoriser wu ma làmb mais dama koy seetaan maag sama njaboot ma ne ko yaa yées yow en tant wax waxkat ci rajo ñëpp di la dégg man favoriser ma waaye dama koy seetaan maag sama njaboot parce que ko bëgg xo xoolal ma nii société boo xamante ni dañoo tardé tardé tardé te jàpp nañ ni lépp am nañ mbokk yi jamono bu ñu àggee foofu mooy mooy jamono yu ndong sax fi mu dañuy dund nii di dox rek mais dañuy làmbatu. léegi amatul benn yëg-yëg man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi boobu moom moom waxuñu ko fa in lam yastati fa bi boobu dee na fa in lam yastati fa bi xal bi sax amatuñ ko nag kon xol sax léegi amat ñun dañuy dox sans xol ñun amatuñu xol suñu xol yi dafa dee suñu xol yi ci boppam moo dee da ngay gis koo xamante ni moom nee na diine rek la bëgg mais commence non diw mooy daan non wala <laughs> diw ko def diw naw ma jéggi géej gi ak genn gars yi ma am na koo xam ne Abdoulaye fu mal xumul a Ubayda lay jullee man ne na jullee ca Kaaba la dem ba ci biir Kaaba ga jullee fa mais la mu def du lu baax kon gis nga jullit foofu la la ñu war a delloowaat suñu yëg-yëg xoolaat na gis nga lii jëm nii lii raam ci ñag bi la jëm te bis bu demee ba am fa kër point jeex na dund nañ ci lu mel noonu léegi léegi da ngay gis ay ñoo xam ne dañuy dañuy dund diine bëgg a dund diine bëgg a dund àdduna léegi dañuy xëcc diine di ko poñee pour tollale ko àdduna maanaam léegi diine mooy ñëw pour maslaa ak àdduna mais àdduna dootul ñëw pour maslaa ak diine déedéet léegi moom diine mooy yelwaankat bi mooy ñëw na àdduna arrangé ma maam fuñ ma bokk rek ma mën faa taxaw te pour pourtant mbir mi mooy diine moo war a jiitu wabtaxi fii ma aataaka allahu daaral wala tansa nasibaka mina dunya kon bokk yi lii moo tax yonent yàlla Moussa ne yàlla waktub lana fi hadihi dunya xasana yàlla ñoo ngi ñaan nga bindal ñu yiw ci àdduna bi mbindam yiw ci àdduna nag faydaa koy may nit ndax boo ko ñaanee yàlla yàlla dana ko wàcc ba mu toll ak yow mu ne nag yéegal pour ko nag mais doo toog rek mu ñëw rek yomb lool yomb lool nga ki déedéet mënta yomb maanaam day ñëw ba jege la tiim la yaay def effort pour joti xasana xasana boo doxul jëm ci doo ko am doo taxaw rek naan fii duniyaa xasana wa fil axirati xasana déedéet fi duniyaa xasana nga dox xool li àdduna bëgg bu dul xasana nga teg ko fa la mu bëgg bu dee xasana nga dem fa doonte sa bakkan da ciy dem tey li ñu dal mooy feebar bi gën a bon lan mooy dañu daan al wahan wahan bi yonent bi waxoon yuusiku an tadaa bikumul umam كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير بل أنتم كثير لكنكم غساء كغساء السيل yonent bi leen di ngeen toog ba peuple yi di leen këf nii comme ni xorondom di lekkee dugub ni ñuy mu ngeen xoolee xorondom bu ñu seeni dugub yëpp koy dem bu nekk di jël di ñëw noonu la peuple yi ñëwee peuple yéen ak yàlla banu Israël dong la mooy yahud ak nasaara ak asbaahum ñooñu ñoom ñooy peuple yi ñoom ñooy dema dem ba jullit bi mooy ñaan pour dund ak ñoom tey eh, xoolee àdduna bi noonu léegi jullit ñi ñoom ñooy ñaan pour dem dund Europe moom man bu ma demul Europe du ma am jàmm man il faut ma nangam xam nga léegi tadaa bikumul umam tekkiwul ni Europe dañuy ñëw jaay leen doole mais yéen yenee dem ba jàppee ne Europe mooy jannatu dunia loolu ngeen koy jàppee da ngeen di jàpp ni ki demul dafa torox dara dem ba seen societé ki demul Europe day yëg ak perte day yëg ak oyof day yëg ak ñàkk ah xanaa suñu gars yi gaa gaa yi ñu ngi boo demul Europe jigéen ñi kay il faut nga am visa wala de ah ah ngeen baal ma de ñu baal ma nag xasuma kenn damay leeral rek xam nga mbir mi nag bu yëkkati ko dal suñu kaw it nañu muñ rek. yow da nga jàpp ne yow pour nga tedd il faut nga am visa dem Europe loolu nga jàpp moo tax lu bari ci ñun suñu liggéey tardé dootoo gis ci ñun kuy jaay socc doo gis ñun kuy jaay ndox wala buy jaay socc bu seen borom jëlbaab làqatu <laughs> ndax day bañ jaar xam ne ko moo oh, socc ngay jaay subhanallah lan moo ci nekk jaayal socc jaayal ndox sa sag mi ngi ci mais doo ko da nga rus waaye yàlla yii nga xam dama doon jaay ndox far seen Fatima quoi maa ma làq Fatima it moom it bëtëm ma ngi ko teg ca ka ka jëm Europe yow nag comme sotti nga am yaakaar nga yàlla feebar bii nag bu xëtee ba ñun ñëpp lay jàpp day dem ba nit ñi alal la ñuy waxtaane léegi ñaar ñoo gis ñu toog ay milliards ay millions la ñuy waxtaane mais lan mooy defar ngëm taala li nu'mina saa amatul taala li nu'mina saa ñëw leen ñu toog tuuti fàttalante suñu diina ndax amaat mu yàlla loolu dee na ba saxaaba yi génnee àdduna waaw léegi nag nan la ñuy def taalaw li nag si ba saa nañ leen def tuuti léegi ut bañ na ko sax ba léegi da ngay jàpp ni àdduna bi dem na ba léegi li américain yi moom la ñëpp di dund temps moo ne non non léegi moom noo amul temps xaalis rek même jàkka ja bu xaalis taxawee nga bàyyi jàkka ja bu xaalis taxawee nga bàyyi ko bàyyi ko nuunu ngay demee di ko demee di ko demee ba dara desatu fi lu dul mbubb moo fiy def léegi mbubb moomu di fi des nag jëmm lay wane mais ku la puus nga daanu jëmm lay wane mais ku la puus da ngay léegi nag loolu moom moo tax tubaab yi dem nañ ba yëg ni oyofal nañ ñu ba dara nekkatu fi léegi nag ñu ne nag nañu dem ci naar yi nga xam ne au moins dese woon nañu diine ñu xeex ak ñoom mais ñii moom ay afrique yooyu moom moom moom ay altoppe lañ moom moom jaru ñoo kaas bu ñu naree kii rek yokku leen pétrole ñoom ñoom problème waaw ñoom bu ñu naree duma ñun pétrole la ñuy yokk rek ñoom problème tali bi oto yi gaz waa loolu lañ ñun suñu duma loolu la léegi nag jullit ñi ñoo dem ba yëg ñàkk fayda saxaaba yi dem benn tàndarma lañ doon lekk rey fukki nit benn tàndarma nga doon lekk xeexal fukki xool leen Amir ibn Fuhayr bi yonent bi ne kan mooy jaay yàlla boppam Amir ne waaw ku jaay yàlla boppam looy am yonent bi yonent bi ne ko fi jannatin arduha ka ardi samaai wal ard àjjana joo xam ne yaatuwaay asamaan ak suuf leen fekk mi ngi yoroon benn doomu tàndarma xiif bi bëgg de amul lu mu lekk yore ñetti doomu tàndarma lekk ñaari xar benn bi dégg yonent bi dox ñemeetu koo lekk dégg yonent bi wax ba pare mu jël jees ne baxin baxin ne la moo tax nga ni cam-cam mu ne ah damaa xam ne àdd àdduna moo gën lii sànni la mu yore dugg ci fond bi ñu rey ko mu ne fustu wa rabbil kaaba xollin xansaat ay doomam ba ñu leen rayee ñeenti doom la am ñu rey leen ci jihaad fi sabilillah nit ñi ñëw di ko jaale moom mu leen di jaale waaw ñu ngi lay jaale kat sa doom yi ñu rey ci yoon yàlla mu ne déedéet man maa leen war a jaale man li ma doon ñaan la ma yàlla may samay doomu shahada ma ànd ak ñoom àjjana loolu la doon ñaan kon mbokk yi jullit bu demee ba mbubb rekk fi des xam ngeen ni mbubb du taxaw kon loolu mooy suñu problème moo tax xiyaamul layl dee na léegi niyaamul layl rek xiyaamul layl bu nu waxantee dëgg yàlla rek tax dee na de léegi ki tànn ci ñun kii xiyaam day yeewu 5 diggante 20 minutes mu jëm cee duur 4 rakka noppal ah ca la koy jéem a leblebal parce que xiyaam bi télé bee ko nangu télé bi moo fëkk xiyaam bi yépp téye ci yam jullit bu demee ba xiyaamatul layl dootul am ruux nit ñaari mbir la yaram al jismu war ruux yaram li koy dundal lekk ruux li koy dundal ibaada léegi nag bu yaram bi manqué lekk ruux bi manqué ibaada yow dee nga kon loolu moom moo jullit bi warul am waxan waxan mooy dem ba ragal a wax yàlla nee na yonentam nee na dem ba ragal a yëkkati raayatul islaam dem ba ñemeetoo wax islaam moo ñu dal bis boo waxee kalimatu jihaad ñaari yoon ñaari yoon mu indi la problème kon loolu moom mooy al wahan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gaa yi ne ko waaw xanaa keroog dañuy néew doole ba duñu mën dara yonente bi da ngeen di bëri waaye mbooloo mu amul poids ngeen mbooloo mu matul kilo ngeen lan moo tax li tax nag mooy yonente bi leeral leen la tax mooy hubbu dunya wa karahiyatul mawt hubbu dunya wa karahiyatal mawt lay tax ngeen ñàkk fayda ba noonu yi diriger mooy bëgg àdduna ragal dee saa bu àdduna jiitoo ci bakkan dee nit ki da koy ragal nit bu ragalee dee dootul wax dëgg nit bu ragalee dee pare na tàppet la saxaaba yi la taxoon ñu am fit dañoo yëg ni dee ak dund ñoo yem dañoo yëg ni ku sa altine jot nga dem moo taxoon ñu am fit yow nag boo jàppale noo bu ma dee nu may def Fatima nu may def Khadija yàlla mi la rey xam na ni muy def Fatima yàlla mi la rey xam na ni muy def Khadija yàlla mi la rey xam na ni muy def sa doom mais su ma dee nan lay def sama doom ku koy kon yaay dundal léegi yow yaa yore dundam yaa yore lekkam yaa yore naanam lépp nag seytaane moo koy def ci yow wal iyaadu billah moo tax Moussa bi mu ñaanee yàlla ne ko waktub lanaa fi haadihi dunya ñoo ngi ñaan nga may ñu yiwab àdduna yiwab àdduna nag yow yaay dox jëm ca yow yaay dox jëm xam nga lu mu ci teg wa fil axirati mu hadaf xasana yàlla may ñu yiw ci àdduna waaye may ñu ko it ku am xasana fil axira yàlla defal na la teraanga yàlla nañ ko yàlla may Moussa teg te ne yàlla li nga bëgg ñu ngi koy def de inna hudna ilayka ñoo ngi jéem jëm ci sa yoon taxaw ngir jéem jub xaala borom bi tontu ne Moussa mu naa ma ne ko azaabi sama mbugal day usiibu danaa ko jotale bii ca moom man asaaw ku ma neex man sama mbugal ci maa tey laa ko teg ku ma neex laay mbugal waaye wa rahmati sama yërmande moom wasiat ëpp na kulla shay'in bépp mbir man sama yërmande yàlla man sama yërmande ëpp na lépp yàlla nañu yàlla dugal ci yërmandeem yàlla nañu yàlla suubee géeju yërmandeem wallahi ku yàlla defal yërmande texe nga ku ko yàlla defal texe nga borom bi nag ne Moussa fasa aktubuha sama yërmande boobu danaa ko bindal waral ko lillazina yattaquun ña ragal laa koy defal yàlla nañu may yàlla may taqwa yàlla nañu yàlla may ragal yàlla yàlla nañu yàlla may xam yàlla nañu yàlla may ñor yal nañu yàlla may yeewu lilladina yattaquun ña ragal laa koy defal kon boo bëggee yërmande yàlla jógal taxaw ci yoonu taqwa yoonu ragal ragal yàlla yoonu ragal yàlla nag mooy li yàlla digle nga ne ca la mu tere nga jéem kaa bàyyi li mu digle jéem ci la nga mën waaye la mu tere ban lépp ndax lépp lu mu tere sa lor lay doon lépp lu mu tere mani sa lor lay doon su ngeen seetloo suñu caaxaan yu bëri yi am ci suñu réew mi lan ngeen ciy jànge suñu mbër yi bëre stade yi ñaata junniy nit ñoo xëy mii di dégg naa ñu ne stade da ngay fees ñooñu fan lañu jullee juma ah ah damay laaj rek fuñ jullee juma ah. très bien kon dimbali. ñun ba ñuy ba ñuy dem di julli ji. policiers sax dañ doon wax wàcc leen yoon. waaw mu ngoog ñu ngi jéggi pour dem julli. mu ngoog gis nga ko. stade fees dell ñu bàyyi àjjuma. war a toog nag ba ba bëggee. waaw. bàyyi àjjuma xam nga ni ku bàyyi àjjuma moom kenn waxatul takkusaan. timis moom laa timis wala gee. waaw. lan la ñu war a seetaan ñaari yàqkat. ñaari fokat ñaari caaxaankat danger yi nekk ci bëre ay ponkal yu futteeku def taatu neen na na kenn jóg ñun summeeku lu ñuy wax subhanallah kii dof na wala de mbër dong moo xëy la ñu naan way way way way def taatu neen ñu lay tàcc yaa toro yemut fa ñaata góor ak jigéen ñoo fa jaxasoo yemut fa ci danger yi ñaata gàllaaj dañu fa sotti ñaata gàllaaj nga xam ni avant làmb ji six mois sept mois sottiku sangu tuuru sottiku sangu tuuru moom la ñuy def nekkee noonu nekkee noonu nekkee noonu beneen musiba ñëwaat musiba bi ñëwaat nag mooy ñi daa taf senegal Sénégal jógaan na diw ay daan diw la ñuy barke laay laay la laa laa maam ma dara yàlla yàlla yërëm doo ba jàng ma ne alhamdulillah fenkat yàlla da koy toroxal ñëpp gis dama xëy tey dégg sunu ñëpp naan diw fen na diw ma ne alhamdulillah yàgg naa fen de tey ngeen ko doog a gis sëñ bi yore say pettaaw yoo xam ni paañ ya lekk nañ ko foo ko xamewul nga bëgg xam ci kuy daana kuy daanu fa la fen tàmbalee yem fa te lii danger bi lii danger bi mooy loolu njabar la ki gëm wax ji waxuma sax de jullit bi mais ki supporté mbër gëm ni nee sa mbër la ñuy daan nga gëm ko 40 jours boo jullee yàlla day bañ nga gëm ko 40 jours boo jullee yàlla day bañ yow moom boo demee woo ko pour mu wax la kuy daan weddi nga alxuraan nekkatoo jullit ñun suñu suñu suñu suñu euh, euh, rajo yeeg suñu télé yi baaxuñ ci réew mi day yàq réew mi ñu mel noonu kenn waru leen favoriser di leen jox micro di leen laaj ñuy wax loo xamante ni même ñi gëmut dara xam nañ ni dañuy fen loolu ci musiba yi la te ñu ko xam na musiba bu demee ba ñu ñeme koo tas ñépp di ko dégg mooy réew mi yàqu na dem na ba amatuñu ngëm yàlla beneen musiba bi gën a bon moom mooy bokkaale yi ci nekk ci takk gàllaaj ci sotti ko bokk na ci beneen musiba bi yées lool bakkan ya cay wadd nga nekk sabab ci nit mu dee naan sama fans la sama soppe la ah kaamil gay léegi moom kaamil gars yi nee nañ tere nañ ko dañuy wax rek bu ñu teree kaamil ñu génn ko ñu ngi ko dugal ci seen taat yi tey nga xool danger ay nit dee yow ngay kontaan sama fans la dafa dee ci loolu yow nga waroon a tiit nga waroon a tiit ci sababu lu bon li nga nekk ba nit dee ci yemut foofu ñu ne loolu day jox réew développement déedéet ñett rek ay am développement ñoo ciy avancé ñaari mbër yi promoteur bi ak ak ak sponsor yi jeex na ñi ci des daara ngeen ngeen ni loolu day avancé réew. musiba bi gën a ngande gën a rëy nag agression yi ciy am agression yi di toj oto jàmbur di fëkk ay jigéen di rey ay nit ñu bëgg a baaxal lii ci ab société ñu ne nii baax na parce que da nga koo bëgg a xeex dafa nangam dafa nangam subhanallah beneen yées yées bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere kanamu jullit nga ciy dóor sa loxo kanamu jullit dafa tedd moo tax yàlla soxla jë jë jullit mu koy dëpp ci suuf nga téye ca kanam boobu di ko joxe ñuy dóor ci sa kanam ngay dóor ci kanamu jàmbur kon mbokk yi daje ci lu bon lii ci ab société képp ku bëgg ragal yàlla bu yaboo nga gumba tëx lu ku ci bëgg a noppalu génneel télé sa kër télé moom feeg yaa ngi ko yore sa kër muccëgoo muccëgoo moo tax Moussa borom bi ne ko ñi ma ragal dong dong dong dong laa koy defal waaw lii lilladina yattaquun yemuñ fa de ñi ragal yàlla mu ne wa na zaka moo ñuy joxe azaka mbokk yi azaka kenn du ko jokkee mbokk azaka kenn du ko jokkee sa goro Sénégal léegi dañuy jël azaka di ko doxee mbokk xaw ma xam ngeen wolof wala déet yaa ngi war a génn azaka sa goro kay sa sa sa bàyyi jabar kay ci sa bopp nga ko a jox mu mais dama am azaka quoi dama ko bëgg a jox sama goro léegi da nga bëgg benn picc mu jam ñaar azaka yàlla désigné na ñi ko moom huit personnes yooyu la jox leen ko waroo koo téye warul xaar waaye naa ci jox sama papa sama papa bu ndaw sama maam bu ndaw sama bàjjen bu ndaw déedéet azaka du jokk mbokk azaka dañ koo war a joxe parce que yàlla subhanahu wa moo ko moom ki la nag fu ko neex nga war a xool borom bi subhanahu wa nee na walladina ak ña nga xamante ne kat ñoom yuminuuna danañu gëm bi ayatina sama alquran bi ñi ko gëm ñoom de dina naa leen defal yërmande kon yàlla nañ ko yàlla defal borom bi yemul ca mu ne ñooñu gëm alquran di joxe azaka nekk ñu lu baax nekk ñu ragal yàlla te baax allazina mooy ña nga xam ni mooy ña nga xam ni fii nag ngay jigéen yi nit mën naa ragal yàlla te lu baax day am de ragal yàlla lool te du baax bëgg yàlla te du baax gis nga ragal yàlla bëgg yàlla kenn doom lu koy gunge pour mu mën a baax mooy muhammad ak la mu gëm sunna loo ragal yàlla ragal yàlla moo gëmut sunna pare nga moo ko gëmut pare nga moo tax mooy alladina ak ña nga xam ni yattabiuuna ittibaa mooy danañu topp tànk tànk xeeñtu li muhammad indi sallallahu alayhi wasallam kenn du rëy ci seen kanam kenn du rëy ci seen kanam ñooñu dañuy dem ba iblis da leen di ragal ndax ku mu leen indil ñu ne ko xam da leen di ragal alladina mooy ñi nga xam ni yattabiuuna rasula danañu topp yonent bi de ar rasul di kan muhammad annabiyal ummi yonent bi nga xamante ne jàngul mënta liir jàngul mënta liir alladina alladi yonent boobu nga xamante ni même <coughs> nasaara ak yahud borom bi ne yajiduunahu ñu fekk ci seen téere yo kuñ fay fekk muhammad maktuban muy lu ñu binde indahum fa ñoom fi tawraat nasaara yi xam nañ muhammad bona leen jàpp rek yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum aka ñoo xam muhammad caay caay leen jàpp waaye xam nañu waa ji wallahi ku mel ni muhammad jigéen sukkut jur ko ku mel ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéen sukkut jur ko li ñu ko def lépp mu jéggale baale poñe ko ba ba ay bëtam xonq mu jéggale baale mais man suma maanduwul kenn dootul maandu sallallahu alayhi wa ku mel nii dafa jar nga di ko topp di ko wër di ko wër ba dee yemul te ne wal injiil ñëw na ci tawraat ñëw ci injiil waaw kan mooy Muhammad borom bi nee na melokaanam ngi nii ya'muruhum dana leen digal bil maaruuf ci jëf-jëf ju baax wa yanhaahum mu tere leen jëf ju bon yonent bi mënta gis kuy jëf lu baax te encouragé wula la waaye du gis kuy jëf lu bon dul mu tere ñaar yi moom yàlla da koo bind ci moom moom nature am mënta ànd ak lu bon lu baax rek la mën a àndal moo tax borom bi subhaanahu wa taala nee na yamuruhum bil maaruf wa yanhaahum mu leen di tere anil munkar ci lu bon wa yuxillu muy daganal lahum ñeel leen <coughs> attayibaat way teey yi li dagan da koy daganal maanaam lekk gu lew lekk gu dagan lekk gu baax gis nga lekk bu daganee noppal borom bu daganu sonal borom ak lu mu neex neex bu daganu ci naqari lay mujj lu mu naqari naqari bu daganee ci neex lay mujj suñ benn bàyyi seen daara sànn góor gu amoon xam-xam la ragal yàlla lool góor yi moom dafa nekkoon ci àll ba daanaka laaxu daqaar rek lay lekk am am bi bëriwul bu la wooyee nga ñëw benn xaritam seet si ko ndeysaan ñu taajal ko laax bi naqari lool muy lekk waa ji nag ba dem ah li naqar na ma naqar na de te dama mën naa ko lay ci kanam yàlla moom ah, dagg ko moom lew doom moom la def lekkal de xam nga loolu <laughs> subhanallah non mag ñi yàlla leen baaxaloon baax ndax ñun nag ndeysaan da ngay bëgg lu neex lu saf suukar lu kii lool moo tax léegi nga suukar jabet rek jabet rek xam kay da ngaa bëgg lu neex rek lu neex te lewut baaxu gis nga gis nga lekk bu lew li tax mu bon nit ñi dañoo foog ni àllaaxira rek la yem déedéet àdduna bi boo dee góor di lekk lu lewut da ngay rek dootoo nekk góor jékki rek courant coupé nga am problème góor-góor leen di lekk lu lew waaw waaw waaw waaw léeg boo jékkee rek courant coupé ku ko xoolaatal li ngay lekk li ngay naan wax daa de ne la <laughs> de jéggalul de jéggalul jéggalul mbokk yi lekk lu lewut baaxul soo ko jëlee jox ko sa doom dangaa jël essence xëpp ko ci safara day fay wala day yokku say doom dañuy feebar say jabar di feebar nga nekk ci soxla yu dul jeex di tëdd guddi di tiit di jaaxle mu nekk koy def fekk la la tiital mi ngi ci yow li ànd ak yow nag fekk jeexu du la bàyyi xoolal ni ngay lekk ndax lew la ndax dagan na bu la taaru soxna si yóbbu ba nga indil ko lu lewut pentiir sax pentiir sax bu lewut néeg boobu ku fa noyyi feebar wallahi la ilaha illallah peinture Sénégal utal peinture bu lewut alal bu lewut nga peinture feek peinture bi raafut boo fa duggee doo am jàmm lewut nañu bàyyi lekk lu lewut baaxul xam nga ñii dañ naan argent sale mais argent sale te tigi tigi mooy lekk lu lewut yàlla nañ ci yàlla mu tam jigéen na ko moytu góor na ko moytu boo dee étudiant wala ngay jàng wala ngay jàng alxuraan di lekk lu lewut munoo avancé kenn amul garabam ki dàq ñaan na la ñaanal ki dàq wax na la waxal yàlla moo ni ku lekk mu lewut mu tii la amoo kon fexeel ba fi ngay toog na lew fi ngay tëdd na lew li ngay sol lu mu rafet rafet na lew lu mu ñaaw ñaaw na lew waaye bul gis gars yi sol lu rafet rek nga naa ko sol li jënti ba sol ko déedéet fexeel ba na lew <clears throat> waaye soxna moo war a dimbale borom këram ci lu lew saxaabi yaate ne bu seen jëkkër daan génne lu ñuy wax seen borom kër yi góor leen ba indi lu lew yéen yéen a dem ngal la bu leen dem indil ñu lu baaxut su ngeen ñu indilee lu baaxut ñu lekk ko dañuy bokk ci mbugal mi ah jabar ji lay wax lii de wax dëgg yàlla jooju jabar ju baax la yombatul nag waaye yal yàlla may lu ñàkk am na ci biir xool sa jëkkër ba li muy indi nga fexe ba mu lew nijaay mbaa lew li nga may indil baax na mais non la mais da nga ba naa naa gën a ah, ah, fekk dara yow xam nga yow yaa gën a xam yow xam nga eh, xam nga. boo taxawee sa néeg wala ngay sangu danga nga jékki rek sa xel ne la <laughs> ah, su ma yaa bëri théâtre xam nga ne li nga jox na si leewut de nga commencé di naxanteeg sa xel wa jaxadu biha wastayqanatha gis nga boo defee lu dul dëgg sa xel moo lay njëkk a condamné moo la naan ah mbaa wóor na nga fël rek di dem non garaaw <laughs> fël rek di dem wóorul de. boo jékkee nag ba régime bi yëpp paan nga doog a commencé <laughs> man kay maa juum maa tooñ jaru ko bañ caa àgg bu nekkul lew gis nga xiif ñetti fan bañ a lekk wallahi moo gën naan benn kaasu ataay bu lew xiif ñetti fan bay wàccu direct moo gën naan kaasu ataay bu lew lu lew baaxut yàlla ci yàlla musal borom bi <clears throat> mu ne yonent boobu wa yuxillu dana daganal lahum ñeel leen ak tayyibaat way yi wa yuharrimu mi araaman alayhim ci ñoom alxabaayisa yu bon yi te ñaaw waaye wa yadau dana teggi anhum wurif leen israhum seen diis diis diis diis yi mooy bokkaale yi caaxaan yi dana wax ak ñoom ba ñu bàyyi ko gis nga bokkaale moo gën a diis fii soo bokkaalee too nekk kenn nit da ngay yenu foo toll ndigg li yenu loxo yi yenu tànk bi yenu lépp nga takk ko diis diis googu mooy isra léegi nag bu ñu fexee nag ba yee la ba nga xam ne lii ngay takk amul njëriñ nga bàyyi ko da ngay féex mooy wayadaw dana teggi anhum wulis leen israhum seeni diis diis wal aglaala ak tënk yi nga xamante ni ëllëti kaanat alayhim nekkoon ak ñoom saa boo lekkee lu new rek benn chaîne ci chaîne jahannam yi nee na sa tànk kërëm tànku ndey joon nga ne naan lu lewul mu ne gërëm tànk càmmoñ bi léegi nag noonu la lay bàyyee ngay dox ci àdduna lu at yi bëri bëri feeg boo lekkee lu lew rek beneen beneen lonk ñëw ne pour noonu lay lonkoo di lonk di lonk ba mat sëkk bu lonkoo ba ma sëkk nag leen dong nga ci des boo génnee àdduna de ñu yóbbu sang suul bu ñuy suul malaaka yi ñëw laaj baaxut borom bi naa waxoon naa ko de xuzuuhu fa xullu summa aljahima summa fi silsilatin zar'uha sab'uuna diraan ndax innahu kaana laa yu'minu billahi al-azim ba tax lekk lu lewut nañ leen waxtaan nañ waxtaan baaxut baaxul Abu Bakr Siddiq mos na am benn ñam ñu la nàkk la ñu ñu ne tàndarmal bu ñu ko jox ndekk dafa bokkoon ci li jullit ñi gañe woon te séddalee buñ ko gis nga bi ñu ko ab Bakar te jot na ko sàq mi mu jàll dafa téye loxoom di dugal ci gémmiñam di wàccu bay wàccu deret ñu ne ko lii pour la na mu ne subhanallah noonu la def di wattu di wattu ba feebaree ci ñemewul lu bon dugg ci gémmiñam ñun nag tey moom bona bona bona bon ñuy lekk rek di naan rek di dem rek wal iyaadu billah moo tax borom bi nee na gax ya nekkoon ci seen tànk dana leen ko dindil ndax bu leen waxee lay tee ñu monote leen kon kenn dootu leen monote borom bi nee na fa alladina amanu ñooñu nag du ñun mooy saxaaba yi ak ñu mel fa alladina amanu gaañ a gëm bihi ca muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla may yàlla nañu may ñu gëm muhammad topp ko alladina amanu ñu dëgëral ko dañ koo gëm ba pare sentiire ko fexe ba kenn dal ci kawam fexe ba li mu indi ñu appliqué ku ko appliqué wul ñu mu jaral ñu sunu bakkan yi mooy wa azzaruhu wa nasaruuhu ñu dimbale sunnaam di ko tas ba ñëpp di ko jot yemu ci nag wattabaru ñu topp an nuur alladi leer ga nga xam ni undila maahu wàcce nañ ko moo ànd ak moom mooy lan alquran dañ koy jàng guddi borom bi nee na ulaika ñii hum ñoom almuflixuun ñooy way texe yàlla nañ ko yàlla may yàlla nañ ko yàlla may mbokk yi alquran moo neex wallahi alquran a neex léegi damay toog di déglu alxuraan di déglu ba jàgg ma ne wallaahi waykat yi bu ñu xamoon lii danañu dañu bàyyi seen kaset yëpp sànni ko kaset bi jar bàyyi ci àdduna mooy alxuraan nga toog di déglu ndeysaan Saadal Ghamidi di jàng wala Idriss Abka di jàng wala yi alxuraan bi ni muy def sa yaram te nga xam ko non loolu loolu loolu moom la kenn doon ko mën muy borom bi subhaanahu wa taala nga waykat yi bari ki dem bi ko génnoon kaset sàppi na xale yaa ngi koy fooyee ci mbedd nañ ci. mais alquran ba léegi dafay gën a rafet di gën a bees di gën a neex yal nañu yàlla may ñu koy jàng te ko jëfee borom bi na yonente bi pour waxal waxal ca kaw nu ko ñëpp dégg yaa ayyuhan naas ay nit ñi nit jinne jullit yéefar ñëpp ñëpp ñoo dugg ci annaas wax leen ne leen inni man muhammad rasulullah yonent yàlla laa bu yàlla yónni ilaykum ci yéen jamian ñëpp man rek ma am yonent bu nekk daa am fu ñu la yónni waaye Muhammad dañ ko yónni ilaa kaafatil xalq yàlla moomu nag alladi mooy kay xam ni lahu ñeel na ko mulku samawaat moomee nag asamaan wal ard ak suuf laa ilaha illa hu amul benn borom budul yàlla ndax yàlla daal yuxyi moom moo baaxoo di dundal wa yumiit moom moo baaxoo di rey moo tax ku rey rek dugg nga ci domaine yàlla ku rey rek yàlla ne nañ ko yóbbu safara ndax rey moom sama domaine la kenn war a jëru ndax man mi dundal am droit rey yow dundaloo ñu lay dundal kii nga léegi moom naa jeexal dundam boo jeexalee dundaloo taxaw taxaw place am waaw nga yóbbu bàkkaaram dem safara comme moom wala iyaadu billah kon dundal ak rey yàllaa ko jagoo ñaar yooyu ñun moomuñu ko ñaari baal la noo maa lay dundal nga bëgg ma yab déedéet dundal dundaloo ko nag dund gi moom daa am ku ko yore fexeel ba bàyyee ko borom bi subhanahu wa taala borom bi ne fa aminu waay waay gëm leen billahi yàlla wa rasulihi gëm leen yonentam bii annabi di yonent boobu al ummi bi nga xamante ni mënta jàng mënta liir allazi yonent bi nga xam ne yuminu dina gëm billahi ci yàlla muhammad moo leen njëkk gëm yàlla wa kalimaatihi gëm nay kàddu yàlla di alquran wattabiuhu waay waay topp leen ko laallahum boo yéen tahtaduuna ngeen jub kii rek ngeen mën a topp jub keneen ku ngeen topp maamam la leen di wax ziyaar yeeg xew-xew yeeg sama maamay waaja ba mu dàqee jaar ba mbëtt ba tourné fii rek lañ lay wax ay yonent bi dong mooy ñëw naan leen ñëw leen ngeen ñëw mën a jàll leen fan ngeen jàll ca seen borom bu nekkoon yonent bi a ñëw leen di tëgg dënnam déedéet waaye ñu ne wax jàll leen sunu gars yi nag ñëw leen rek tëgg ci dënn yi rek ñëw leen ñëw leen sama maam sama baay sama bàjjan sama maam lu mu def sa baay lu mbir mi jàng dong la ak jëfee sa maam jàng na baax na am na ñu ko gën a jàng ñi ko gën a buñ ko jàngal woon du xam dara loolu mooy wax ji boo fi tàggee sa maam ci am xam-xam it ay maami jàmbur ko jàngal kon jarul baax ko boo fi tàggee sa baay ci xam ko jàngal sa baay nekk borom xam-xam sa maam xëyul nekk borom xam-xam fan la jaar Sénégal la jàngee génn fii fii mu jàngee nag munu fee bàkkoo ndax ay baay jàmbur ak maami jàmbur ko jàngal loolu nag mooy wax ji. kenn judduwul fii rek nekk borom xam-xam déedéet kon boo sama maam it fexe gàtt rek waaw sa la gàtt donc loolu du bàkku waaw ndax sama maam daa am ñu ko jàngam léegi nag borom bi subhanahu wa taala nee na am na ñoo xamante ni topp nañ yonente bi gëm kàddoom topp ko ndax ñu jub ndax bu ñu ko toppee jub léegi nag mu dil siwaat lii da ko cee dugaloon ndax ñëw na ba ci yonent bi wax ñu ngëneel yu bëri ci Muhammad dagg wax jooju dellusiwaat ci Moussa moo tax borom bi moo dàq wax ndax moo jox ñuy wax ñuy wax kon moom bu waxee nag war nañoo wedem moo tax mu ne wa min qawmi Moussa wala du foofu wa min qawmi Moussa am na ci nit Moussa ya ummatun mbooloo moo xam ne yahduuna danañ jubee bil ci dëgg ñaa ndono Moussa jubloo wa bihi te seen borom it yaadiluuna la ñuy yemee borom bi nee na waqataanaahum ñu séddale leen isnay achara asbaatan fukki sët ak ñaar ñu nekk umaman di ay xeet ay xeet lañ de yàlla subhaanahu wa taala nee na moom moo leen def ay xeet ndax loolu ci keemaanam la bokk shuuban wa qabaila li inna akramakum inda allahi atqakum léegi nag borom bi neen waqattaxnaahum ñu dog leen isnay achara asbaatan ñu nekk fukki sët ak ñaar umaman di ay xeet emu ca borom bi ne waaw xëy naa waxyu nañu ilaa Muusa ne ko idi stasqa ba nga xamante ni sàkku naa nandulu xaw mu wu itam nekk nañ fukki xeet ak ñaar am benn bërëb buy génn ndax ñu war a naan ñu commencé xeex commencé xuloo yàlla ne Muusa loolu jar ko moo tax mu ne idi stasqaahu ba nga xamante ni sàkku na ci moom xawma mu nitam ya borom bi ne Moussa an idrib bi asaaka alxajar jarul coow li léegi sa mont yat bii dóor ko ci montagne bi ba ko Moussa dóoree borom bi na fat ca saasa nag im bajasat daa di bënn minhu ca moom isnata fukki bët ak ñaar comme fukki xeet ak ñaar nag xeet bu nekk am seen robinet jàmm na ñooy borom bi nee na xad alima daal dinay xam kullu unaasin bépp mbooloo mashrabum seen naanuwaay waa faaleen waa jóobeen waa mbayeen waa mbengeen kenn ku nekk dem ci sa bërëb naan yamul fa ne borom bi ne wa dallan naa keral nañ alayhim ci ñoom alxamaama niir wa wa andal naa wàcce nañ alayhim ci ñoom almanna man na benn xeetu gàttu la ak salwa man na yàpp lañ koy defee salwa farine lañ koy defee yàlla ne defaraal la léegi picc yi la ñuy jël def ci bulet bu ñu jëlee picc yi dëbb ko togg ko bu ñu ko toggee def ko ay ay ay nàkk nàkk yooyu ñu koy def moom mooy man na salwa ñam la boo xam ne day am lem am raisin am olive dafay sax suukar maanaam nit ki bu lekkee lu am yàpp léeg-léeg lekk lu am suukar du ko yàq ndax yàpp lu am suukar du ko yàq li am suukar lenn rek la mën a yàq léeg-léeg te bërul mooy jën lu ànd ak jën moom suukar aayu ci mais lu ànd ak yàpp suukar daal na te aay moo tax borom bi ne bu ñu lekkee man na ba pare laal ci salwaa ji tuuti léegi nag borom bi ne leen kuloo lekk leen min tayyibaati maa razaqnaahum ci way dagan way teeyi lañ leen xéewalal wa maa zalamuuna ñu bañ borom bi ne tooñuñ ma de walakin kaanu anfusahum yazlimuun seen bopp la ñu tooñ ki def bàkkaar tooñoo yàlla sa bopp nga tooñ borom bi ne ne wa iz qiila lahum fàttalikul ba waxee leen ne leen uskunu dëkk leen haadihi alqarya dëkk bii di baytul maqdis ñu bañ dëkk leen fa wakkuloo ngeen lekk minha ca meññent ya haytu shi'tum fu leen neex dem leen meññent bu ngeen gis dagan na lekk leen waaye nag bu ngeen paree waquuloo wax leen xittatun yàlla baal ñu suñu bàkkaar yàlla suppeeku nañ jéggal ñu léegi nag wad xuloo ngeen dugg albaaba buntu dëkk bii di baabil wala baytil maqdis bu ngeen di dugg nag sujjadan sujootal leen yàlla bu ngeen ko defee naghfir lakum xati'atikum ñu jéggal leen seeni ñaaw teef su ngeen ko defee kon sa naziidu borom bi nee na bu ngeen tuubee jéggalu sujoot danaa yokk almuhsinin way def yu baax yi waaye yàlla nee na ñu bañ fa baddala ca saasa daal di soppi allazina zalamu gaañ a tooñ minum ci ñoom xawlan wax ba ñu leen waxoon xitta ñu ñëw ne xinta mooy yàlla jéggal ñu xinta mooy yàlla may ñu resin ñoo saay-saay waaw ah, yàlla jéggal nga non may ñu resin kon baat bi ñu soppi mooy danger moo tax jullit warul soppi alxuraan warul soppi tur soppi tur bi dagan na bu ko soppi aaya bi feeg mi ngi fi bu ko soppi moo tax borom bi nee na fa baddala alladina zalamu minhum qawlan wax joo xam ne xayra alladi qiila lahum budul ba ñu leen waxoon moo tax ba ñu ko soppee changé ko nag borom bi ne fa arsalna yónneef nañ alayhim ci ñoom rijisan mbugal min assamaa'i bu bàyyi koo ca asamaan si bi maa kaanu ca sababu la ñu nekkoon yazlimuuna di tooñ ko sababu la ñu nekkoon di tooñ ko borom bi nee na subhaanahu wa taala loolu moom moo tax ma daal di leen di mbugal defe naa foofu war naa baax. kon kon yal nañu yàlla jéggal jéggal incha allah. فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب